ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bi ñu nekk ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale jot na résultat examen yi may waaja lim ci juróom test yi ñu def téeméer ak ñeent ñoo ci positif juróom yi di ay cas contact ñaar fukk ak juróom-ñeent yi di ay kaa yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci Thiès ñeenti ka Touba ñetti cas Guédiawaye ñetti ka Mariste ñetti cas Kër Massar ñetti cas Liberté 6 ñaar Yëmbal benn Mbao benn Rufisque benn Grand Yoff benn Médina benn dalifor benn Wakam benn Ngor benn Ouest benn Sicap benn jili Djilimbey benn juróom-ñeent fukk ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñeent si suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation ñu koy wax sauvetage ben malade ñak na bakkanam ci bésu démb àllarba ñaar fukki fan ak ñent ci wéru juin ci suñu structure de santé ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tay dalé ko ci cas bi nga xamné mom la gis Sénégal woññi nañu juróom benn junni ak ñaar téeméer ak fanweer ñett ak fanweer ak ñetti cas yu positif ma bamtuwaat ko juróom benn junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak ñetti cas yu positif ñeenti junni ak téeméer ak juróom benn fukk ñaar ñoo ci wër juróom ñeent fukk ak ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci suñu structure de santé yi ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi ñaax askan wi ñu gën a sàmmoonteeg